أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala barakaatu ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di di fas yéene ànd ak yéen ci benn texte bu nga xam ne làmboona ay axaadis yu bari muy waxi yonente bi sallallahu alayhi wa waaye wax yi li takku takku takku daanaka mën nañ koo tënk ci benn kàddu nga xam ne mooy mbóotu wax mooy idée générale bi muy lan intisaaru alfawaxishi min calaamaati saaca bokk na ci màndarga yi nga xam ne day wane ne léegi àdduna tukki màndarga nag mooy ay signe signe mooy lu ñu xàmmee ne lii kat lii koy waral ci misaal boo gisee ay ceeñeer yu dugg jaar ki sa buntu nekk wala sa fenêtre wala bën bëni tabax bi nga mën cee tegtaloo ne kat jant fenk na euh, comme ni ceeñeer muy rayon du soleil li muy wane ne jant fenk na màndarga yii itam day wane ne àddunaa ngi bëgg tàggoo àddunaa ngi bëgg tukki àddunaa ngi bëgg a jeex mu mel na nag màndarga yooyu mooy euh, suñu demee ba ay mooy yàlla ak i jubadi aki i caaxaan wala def naka sudul noonu tasaaroo lool siiw lool bari lool ba jubadi su amatee sax du événement ba ñaaree léeg-léeg sax di nga gis jubadi gu rëy rëy rëy nga koy nettili di yéemu waaye ka lay déglu wala ña déglu seen réaction mooy waaw kii moom fu nekkoon kii de train bi raw na ko kii de branché wul kii de jamono raw na ko lool lool ndax du nekkati événement ci ñoom du nekkati xew-xew ci ñoom du nekkati lu jara yéemu mbokk yi kon ñu ñëw ci xadiis yi mu ne an anas ibni malikin qool qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna min ashraati saacati an yurfaca alcilmu wa yathbuta aljahlu wa yushraba alxamru wa yadhara alzina mel na ne boo xoolee nangam bi mu wax ak wax wax yam ca teg muy nangam ak nangam ak nangam dangay gis benn nangam ak ñetti wa kon loolu mooy wane ne tudd na ñeenti mbir soit ñeenti danger wala ñeenti gravité wala ñeenti bàkkaar yoo xam ne wala ñeenti njombe yoo xam ne suñ ko gisee ci jamono rekk wala sax bu la neexee nga tuddee ko ñeenti musiba noo ko tuddee rek day aju ca benn bu ne ak fa mu féete waaye ñeenti mbir a ngi nii daal saa yiñ ko gisee ci jamono nañu xam ne day tegtale ne léegi àdduna tukki day wane ne àddunaa ngi ngi tàggoo comme ni rayon du soleil di wane ne euh, jant bi fenk na mbokk yi màndarga mu njëkk mi mooy su xam-xam ñibbee hmm? waaw kon ndeke bokk na ci àdduna ni muy tàggoo ni muy tàggoo bala muy tukki xam-xam day ñibbi xam-xam nag mooy xam-xam bu am njariñ xam-xamu diine xam-xam buy jëme nit ca yàlla loolu nag tekkiwul ne téere yay dem de déedéet tekkiwul na itam li woon ci dënni ñi jàngoon mooy dem déedéet waaye xam-xam utilité ba njariñ ba mooy daldi ñibbi loolu nag dana feeñ ci ay aspect yu bëree bëree bëree bëree bëri kiy jàng du jàngati ngir li taxoon yàlla ne nañ jàngi wala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne nañ jàngi wala tabaarakallaahu ña yàlla waxloo lañu wax ne moo taxoon ñuy jàngi xam nga dañu waxoon ne kiy jàng xam-xam dafa war a am intention jàng ngir dañ ci réer muy benn beneen bi itam mu am intention jàng ngir buy jëfee mu teg ko ci lu leer ba du làmbatu buy jëfee mu teg ko ci lu leer muy buy jaamu yàlla ci jaamu jëf di jëfe ndigal mu teg ko ci lu leer xam ne lii ka ndigalu yàlla lu wér la waaye suy bàyyi tere itam mu teg ko ci lu leer xam ne lii ka tere yàlla la donc loolu daana bokk ci objectif yi tax ñuy jàng waaye itam beneen bi mooy jariñ jariñ ci mbindeef yi jariñ ci mbindeef yi waaye léegi nag bari na kuy jàng te fekk la muy jàng lam ca jublu rekk mooy am alal te bu njëkk la waroon a am su amoon xam-xam dafa war a nekk njaatige alal nekk surgaam di ko liggéeyal alal dañ ko waroon di jëfandikoo ngir muy liggéeyal xam-xam waaw alal ji kat dinaa ci jënd ay téere dinaa ci tabax bibliothèque dinaa ci tabax jàkk wala daara alal da daan servir xam-xam waaye léegi damay jàng ngir nekk gàmmukat damay jàng ngir nekk waaraatekat buy occuper média yi nekk au devant de la scène de médias wala nekk oustaz Euh, oustaz buzz yooyu yëpp day am waaw oustaz buzz wala tante bu ma dugg rek toj ko conférence bu ma dugg rek toj ko yooyu yëpp day am loolu tax na ba fi ne nii ña doonoon boroom xam-xam te yàlla tax leen a jóg ñu ci bari bàyyi nañ tante yi bàyyi nañ média yi am na ci ñoo xam ne sax waxuma la bàyyi waaye dañu leen gisul dañu gisul boog lu leen jaral ñu ciy dugg dugg gi sax moo dul am te moo ne yàlla xam na ne ña nekk ca média ya wala tànt ya sax ñoom ñi toog ba ne duñu dugg ñoom mën nañoo jàngal ña ca média ya waaye nag nit ñi duñ ko xam fi ne nii bokk na ci ñibbi xam-xam tumuraankeeg xam-xam nit ñi sax xamatuñu nu ñu natte xam-xam nu ñuy apprécier xam-xam saa yu ne ngay toog nit muy naw ab xam-xam fekk loola sax yow ca la tax ñu naan xam-xam mën naa am du xam-xam bu foor walla ñuy naw nit ci xam-xam te fekk sax yow dangay yëg ne kii dafa war a jàngi wala ñuy jël nit di ko teg sa kaw wala di ko teg ci kaw benn waay te fekk yàlla xam ne ne ka ñuy yëkkati ci xam-xam di ko naw lool ka ñuy suufeel di yëkkati waajee di ko teg ci kaw moom ma ñuy suufeel yàlla xam na ne mën naa jàngal ka ñuy yëkkati te ka ñuy yëkkati sax dina xam ne waa ji mën na koo jàngal waaye comme nit ñi aj ajal nañ ko naw nañ ko day daal di rusa wax ne kii ma raw wala kii ma mën a mën a jàngal yooyu yépp ci euh, tumuraankeeg xam-xam lay doon te ci màndarga yi àdduna buy tukki la bokk benn bés toog naa ci benn tàngana benn tàngana di xéewlu yàlla dogal euh, man bërëb bu ma nekk ku ñëw rekk damay jàpp ne maa war a jànge ci yow waaye duma gis kenn jàpp ne moom moo war a jàng ci man am benn waay bu doon wax ay secret ci wàllu faj ba naan lu mel ne taab walla jamaj xaw ma jamaj lañ koy wax wala jamuj muy picc yu ndaw yooyu waa ji nee na yombul mu dal ko nee na taab yombul mu dal ma jamaj yombul mu dal ma si biru sax yombul mu dal ma ma ne ko waaw lu ko waral mu ne ndax dama koy kar dama koy gàttandu buy juddu rek du ma ko bàyyi mu màgg bala moo màgg rek ma éliminer ko waaye euh, biñ agsee ki sibiru ma ne ko waaw sibiru noo koy éliminer mu ne ma li ñuy wax mbante maare mbante maare moom laay jël jël doom bi mel ne ñebbe ma xolli ko ba ma ko xoolee doom yi sew ya ca biir laay jël def ko ci bouteille saa yu ma xëyee jël doom sex daal di koy jàllalee ndox mu mel ne genre médicament waaw mu ne ma loolu soo koy def ñaare sibbiru du la yàpp saa yoo yëgee màndargay sibbiru rek yenn symptôme màndarga yuy wane ne sibbiroo ngi lay yoot rek ngay def loolu sibbiru si foofu lay yam booba fekk na man maa ngi sol sama benn yére bu xaw a gudd dal di sol mbaxana te Sénégal boo solee benn yére maanaam abi traditionnel abi traditionnel muy li ñuy wax yére olof rek donte mën naa bañ a doon yére olof waaye comme loolu moo gën a siiw naa ko waxee noonu rek Sénégal boo yoree boo solee yére olof yàlla boo ca teg mbaxana ñoom li ñuy njëkk a xalaat mooy kii kat oustaz lay war a doon wala sëriñ bu ñu ziyaare ku bokk ci famille religieuse yi wala imam wala sëriñ daara moom daal il faut mu am mbubbum diine muñ la solal donte mën naa am nag jubluwoo ko ca waaye waa ji ki ma dendal bi waa ji tegtalee garabam googu nga xam ne ci lay prévenir paludisme wane ma cey àddunaa ma tey ndax man booba maa ngi sol yére yu gudd yérey olof moom mu sol yérey tubaab moom mi ma jàngal xam-xam boobu jàngal ñu ko ñun ñëpp mu ne ma àddunaa ma tey ne ko ah mu ne ma xoolal yow yaa ngi sol yére yoo xam ne ku la gis dalay teg oustaz wala imaam maanaam daal ku doon gëstu xam-xam bii gis la nga toog ak sa yére olof yi ak kee yére tubaabam bi ku doon gëstu xam-xam bi euh, da ko fiy gi ñëw ci yow te mën naa am loolu nekkul ci yow ca noona itam man tontuwuma ko ndax léeg-léeg itam day am wax yoo xam ne euh, waa ji koy wax niveau bi muy waxee day suufe tellement que man naa am soo ko doon jéem a tontu lang nga ca doon jublu muy mu jàngee ci du ca am ndax la niveau bi mënu koo dékku moo tax ma ne cell waaye bi ma wéetee ba koy analyser ma ne xoolal ma waa ji rek li mu wax fi mu ne tey jàpp na ne kon man mi ñuy xool di ma yaakaare boroom xam-xamu diine kon su ma tontuwul laaj bee rek day wane ne aw ma xam-xam kon waa ji xam-xam bee mu wane ci wàllu faj le fait que mu am ko man amuma ko kon day wane ne xëy na man yére olof yi ma sol wala yére yi niru diine mbirum diine mën naa am sax kon ndeke kee moo ma gën a doon nituk diine analyser leen léegi moom ban xam-xam la jàngale xam-xamu faj kon li mu jàngale ci wàllum médecine traditionnelle la jëm waaw nituk diine moom ndax daa war xam médecine traditionnelle daa war a xam ni ñuy faje bopp buy metti wala biir buy metti wala tànk buy metti soog a doon nituk diine ma ne koy man man xaw ma lu ma doon de man naa am sax du ma nituk diine waaye damay koy fekk si ci logique bi muy wax rek su fekkee euh, ku sol yére yi olof dañ laa war a jàppee nituk diine te pour nga mate ko nag danga war a xam liy faj bopp bu metti ak tànk bu metti ma laaj leen ne leen waaw ndax nitu diine moom daa war a xam luy faj bopp buy métteeg tànk buy métti ma jàpp ne nitu diine kay dafa war a xam fiqh wala tawxiid wala xadiis wala siira nitu diine kay xanaa dañ ko war a laaj faratay jàpp lu yàq jàpp julli lan lañ ciy tari ah lan mooy ponki ponki sëy nan la ñu takke sëy defe naa yu mel noonu lan mooy miiraas loolu lañ war a laaj nitu diine waaye su fekkee nag nituk diine moom dafa war a doon koo xam ne benn mawsuwa yu lay doon aalim kullu fànnin ku xam domaine yépp ba nga xam ne moo war a xam sax nañu faje loolu itam day mel ne kon nit ñi léegi euh, euh, tabaarakallaahu xamatuñu nu ñu apprécier xam-xam loolu mi ngi ci wax naa ko ay mbokk ba taay may leen ba ci gàmmu nit mën naa doon boroom xam-xam te du mën a gàmmu di gàmm yii ñu lay firil ngay baagante di dem ak ñëw ma ne leen loolu don la rekk waaye nit mën naa nit mën na koo man doon boroom xam-xam mën na koo man itam bañ doon boroom xam nit mën na koo bañ a man doon boroom xam-xam itam nañ koo bàyyi xel wax naa ko sama benn waay nee naa ko Sénégal gii dey doon fi boroom xam-xamu diine wóorul de mu ne ma lu tax ma ne ko li tax mooy nit ñi xamuñu lan mooy xam-xamu diine ak lan moo ko doonul boroom xam-xamu diine xàmmeewuñu lan moo aju ci domaine ak lan moo ci ajuwul fi mu ne saa yoo waaraatee ci bërëb rek wala nga animer conférence wala nga def émission télé wala rajo wala fenn ci internet bi wala plateforme yi nit ñi ñoom suñ lay laaj daanaka bu doon fukki laaj la juróom-ñetti laaj yépp wala juróom-ñeenti yi du jëm ca la nga jàngoon du am benn rapport ak li nga jàngoon ndax dangay doon boroom xam-xamu diine ñu ñëw di la bëgg firiloo seen gént yi waaw dama géntoon muus may dàq janax ja kay damaa géntoon xaj ba ak golo gay dàqante loolu lu muy tekki mbokk yi nit ki mën naa doon boroom xam-xamu diine te du mën a firi gént loolu dafa war a leer ci bopp yi nit mën naa doon boroom xam-xamu diine ay lool mën a miiraas mën a jiite ci jumaa yeeg jàkka yi mën a takk sëy yi xam faratay julli yeeg sunna yeeg ngëneel yeeg li koy yàq mbirum diine yu bari man laa waxtaanal ci jaar jaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xàmmee xadis bu wér ak bu wérul xam loolu yépp tadu tax tadu tax mu mën a firi gént waaye bu ngeen juumee ba yaakaar ne boroom xam-xamu diine dafa war a doon koo xam ne gént goo ko tegal rek automatiquement mu tekkil la ko su ko tekkiwul nga ne amul xam-xam loolu da ngeen di waru kon ñaar yi mën naa nekk danay leer nit ki mën naa doon koy firi gént nit mën naa firi gént ba noppi te du doon borom xam diine beneen bi itam nit mën naa doon borom xam-xamu diine ba noppi te du mën a firi gént loolu day leer beneen bi itam mooy saa yu ñu nee borom xam-xam nga rek ah sama sëy ba de ma ngay bëgg a yàqu waaw moo sama borom kër ga kay man rek lay bañ a tudd léegi kay damay xëy ñu toog ñetti fan wala weer duñ tuddante ñaanal ma waaye ñu juboo bu ko defee nga jàpp ne borom xam-xam bi daawar war doon koo xam ne saa yoo dëngoo ak sa boroom kër da leen a mën a juboole bu fekkee da ngay wut ab liggéey mu ñaanal la lu tax nga am liggéey di ñaanal say doom ñuy ami bac di ñaanal say doom ñuy ami visa ñuy tukkee ka ñëw kuy wut liggéey am ko ku feebar mu ñaan mu wér soog doon borom xam dama ne nit mën naa doon borom xam bu mag. te du man ci kuy def bag dara sa sa sa jëkkër ji bu bu fekkee eh, seen diggante neexatul li muy man mooy conseiller leen de waaye mënu leen ñaanal force ngeen ngeen ngeen juboowaat wala seetal ma oustaz waaw seetal ma waaye fanaanoo ma waaw dama wax ne yii yépp nit mën na koo bañ a te boroom xam-xam la waaye mbir yi léegi boroom xam-xam yi ñoom it dañuy ragal ku leen weddi ragal ku la weddi bu mu la tee wax dëgg nit bu ñëwatee nga waaraate wax ci fiq wala xadis wala nangam mu naan la waa sama gént gi lu muy firi wala man de maag sama jëkkër weer a nga nii tuddante wuñ doo ñu ñaanalaat ñu juboo wala sama doom ji de day wut bag wala sama doom ji de fan yëpp bopp bi day metti lu koy faj nga ne ko hee jànguma firi gént munumaa seet munumaa gisaane munumaa ñaanal nit mu am visa li ma man kay mooy li ma man dàquma la ko jàppal ba sell nga julli ñaar rakkatal say loxo ñaan borom bi def ko defal ko sa bopp man itam bu ma lay ñaanal loolu laa man de jàpp ba sell julli ñaar raakaat tàllal loxo borom bi ñaanal la mais itam mbir ma borom xam-xam yi domaine yi ñoo wuute ñoo wuute kii fajum tubaab lay faj médecine moderne kii fajum cosaan muy médecine traditionnelle kii wàllu xam-xamu cosaan kii wàllu xam-xamu euh, nu mu tuddati xam-xam bu ñuul. kee wàllu ay xaatim yooyu kii nag ci wàllu fiq nit mën naa jàng fiq xadis siira naxwu balaaxa sorfu arut jàng lu ne ci mawaad chariya yi ak mawaad lugawiya yi maîtriser ko bu baax loolu mooy domaine am mais nag ça ne veut pas dire forcément boroom xam-xam daa war a doon kuy gisaane wala kuy mocc bopp wala kuy firi gént lii Sénégal sénégalais yi il faut ñu yee leen ci borom xam yi itam ñoom itam day doon loo xam ne du seen domaine ba noppi ñu bëgg a fekk si nit ñi ci li leen neex day indi ñu weddi la de mbokk yi kon loolu jarab taxawaat la bàyyi ci xel yooyu nañ ko bàyyi xel kon euh, ñaari lënt yi am na ñuy apprécier xamatuñu luy xam-xam ñu ci bëree bëri ci société bi. ba tax na fi mu ne ñaare dama naan boroom xam-xam sax bu la yàlla nattu werante de ñaare saayo werante werantee yow boroom xam-xam di weranteeg ñu waxewul xam-xam dañ lay yey ndax dangay wax yu riis yu tegu ci xam-xam waaye duñ mën a am niveau pour analyser ko pour ñu mën koo apprécier à sa à sa juste valeur waxoon naa fi itam ne xam-xam léegi aar la ndax la taxoon a jóg xam-xam ci wàllu diine muy man muy sama moroom nekkatul ci ñu bëree bëri moom daal benn nang fi toj wala nga feesal poche bi waxtaan ngir am alal wala ngir am nit ñi wala ñu naw la am alal wala bës rek ma ne leen ba tax na ba ci soxna yi sax bu njëkk la nga daan def naan naa dem takki jigéen gu jàng alquran wala bu génn ci école arabe yi nekk yaa saydaa di muuroo ko jàngale ma ne leen jamono ji loolu sax taxatul am soxna su baax waaw fi ne yaa sayda bay muuru di jàngale wala élève arab ba ca école arab ba di jàngale di la taj tajwiidal alxuraan ju neex di la waxal ay xadiis di la làkkal ay arab di la waxal fiqh di la wax siira mook élève bay jànge ca école tubaab ba école française ya ñooyam yenn mentalité yi ñooyam yenn xalaatin ñooyam même ak yàqute da di kii daa daa jàng jëme ndijoor kee jàng jëme càmmoñ rek waaye ñoom ñëpp seen xel yi moom càmmooñ la jëm waaw loolu foofu la jamono toll kon mbokk yi euh, xam-xam moom ñibbi na waaye ak réer yi itam daf fiy sax ndax ñu bëree bëri nangootuñoo jàng nangootuñoo laajte te dañuy daw jotaayu boroom xam-xam yi mu ne bokk na ci màndarga yi yiy wane ni àddunaa ngi tukki àddunaa ngi tàggoo Euh, dañuy yombal wàllu sàngara lépp lu jëm ci sàngara rek luy màndal moo xam lu ñu naan la donte lu ñu naan la waaye day sous-entendre rek mboolem xeet yi màndal moo xam yàmbaa bala moo xam drogue bala ah ba ci xale yu ndaw yi sax dañ leen di yombal ak màndi ñu ngi mel ne comme jakarta yi fi xewoon waxuma jakarta moto yi de jakarta biñ doon naan nga xam ne am na taux d'alcool bu bëri bu ci nekk macha allah waa Jamra xeex nañ ci lu bëree bëri ba am ci résultat waaye ay temps ay sachet la doon doon ñu koy jaay élèves yi doon ko jënd ñoo xam ne ay adolescent lañu di ko naan di mandi di mandi mu leen di jural ñàkk kersa gu doy waar ñuy tontonteeg seen yaay yeeg seen papa yeeg seen professeur yeeg yu mel noonu bokkut ak nag chicha bi nga xam ne daanaka foo dem rek ci hôtel yeeg auberge yeeg. yenn kër yéeg yu bëree bëri tasaaroo na fa lool kon xeet yi màndal day yomb lool ci àdduna buy bëgg a tukki bokk na ci màndarga yi itam njaalo yu itam day yomb lool lool boo xoolee foo toll ci réseaux sociaux yi moo xam Facebook bi la euh, da ngay daal di gis rek ay eh, ñuy publicité waaw jigéen ñoo xam ne dañuy jaay seen bopp bi publicité di joxe seeni numéro kooku moom mi ngi ci plateforme yépp yépp di wax nam gën ñaawe euh, bokkut ak nag ñuy taxawaalu ci mbedd yi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne sax loo gëstu gëstu sujet bi rek ba maîtriser ko rek am na yoo ci dul xam yoo xam ne boo ko déggoon rek nga daal di dar sa nopp taf sa gémmiñ kon xadis boobu Buxaari yi moo ko solo ak muslim kon daal xadis bi indi na ñeenti màndarga yoo xam ne saa yi nga ko gisee ci jamono day wane ne àddunaa ngi bëgg a tukki muy xam-xam day ñibbi muy benn ñaareel bi mooy ak day sax muy kenn du nangoo jàngi wala duñ jàng-njàng mu àgg ñetteel bi mooy dañuy yombal luy màndal nit ki wàllu sàngara yeeg yàmbaa yeeg xëy di ñu tux di màndeeg di ko fóon yooyu ñeenteel bi mooy njaalo dafay yomb lool lool ci e, jamono ji wa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa layakunanna min ummati aqwaamun yastaxilluuna alxirra walxariira walxamra walmacaazifa wala yanzilanna aqwaamun ila janbi calamin ila janbi calamin yaruuxu calayhim bisaarixatin lahum ya'tiihim yacni alfaqiira lixaajatin fayaquluuna irjic ilayna gadan fayubayitahum allahu wa yadaacu alcilma wa yamsaxu aaxarina qiradatan wa xanaziira ila yowm alqiyaama rawahu albuxaari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na balaa àdduna tukki de dinañ dem ba yegg ci jamono joo xam ne dinga gis ay nit yoo xam ne dañu tuddoo ne dañu tuddoo ne ci sama xeet la ñu bokk dañuy tuddoo ne yàlla la gëm seydina muhammad sallallahu alayhi wa mooy seen yonente alquran mooy seen téere di woote ne ay jullit lañ waaye day ca làmmiñ walay yem ca làmmiñ wala yem waaye boo xoolee seeni jëf lañuy ñuy jëf jotewut ak lislaam dara ndax benn dañuy sol yére yooyu ñuy wax soie soie nag mooy yérey jigéen rek bu ñu demee ba nga xam ne góor ñi dañuy yomba sol coliinu coliinu jigéen waaw ci seen xeetu tubay yaag seen xeetu xeetu mbubb ya ñuy sol ak euh, saag ya ñuy yor yu mel noonu couleur ba ñuy faral di yor ba ci sa euh, pochettu téléphone sax léeg am na couleur bu muy yor couleur féminine la lu mel ni couleur rose wala yu mel noonu dañuy dem nag ba jëmmi jamono góor ñi di utiliser yëfu jigéen saagu jigéen yére jigéen euh, dallu jigéen doxiinu jigéen waxiinu jigéen yu mel noonu euh, nee na euh, loola dana fi bari lool te ñi koy def kat boo leen nee du ngeen jullit wala di defu leen yëfu jullit rek ñu bëgg a xeex ak yow Euh, beneen bi itam mooy kon dañuy yombal sàngara maanaam dañuy dañuy yombal sàngara lool lool lépp luy màndal màndi gi naan xas ay xale yu ndaw bu njëkk tux liñ ko xamee woon mooy mag mu dem ba romb fanweeri at waaye léegi xale boo xam ne amagul dix-huit ans sax benn adolescent boo xam ne douze ans lay soog a am wala quatorze ans nga gis ko ndeysaan muy tux wala léeg-léeg muy naan beneen bi itam mooy dañuy yombal instrument de musique yi dañuy promouvoir li ñu tuddee loisir saa yoo duggee ci wàllu musique rek ñu jox lay moyen jox lay facilité mettre la au devant de la scène des médias ñëpp di la gis waaw kon bokk na ci màndarga mu jug jamono góor ñi di sol colinu jigéen waaye itam sàngara tasaaroo musique bi itam tasaaroo lool lool lool boo xoolee ci tiktok yi facebook yi youtube yi chaîne yi nga xam ne sax day yëngu ci wàllu musique wala plateforme yi yëngu ci musique ñoo gën a am visibilité léeg nga gis ko créer benn chaîne youtube nekk ci lu mat fukki at yàlla xam na ne 1000 abonnés sax da koy të nga gis koo xam ne nag chaîne bi mu créer euh, ay musique rek la ciy jàllale waaye même pas un mois mu daal di am plus deux millions d'abonnés waaye ka créé chaîne bu am njëriñ na di jàngale faratay jàpp ak sunna yeeg ngëneel yeeg ñaan yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngaleeg euh, siira ak xadiis ak yu mel noonu moom mën na cee nekk fukki at te na ma yàlla baal du am sax mille abonnés nee woon naa leen man suma dugalee benn waxtaan wala benn vidéo ci sama chaîne YouTube mu am Euh, vues yu bëree bëree bëri ci temps bu gàtt damay tiit dama naan ah tey de kon xam naa ne waxtaan wi jaarale ko yoon ndax nit ñi kat lu am njariñ yombul ñu ciy cliquer yombul ñu ciy cliquer moo tax sax ñaaree bu sa chaîne amee njariñ say abone du gaaw a bëri say vues du gaaw a bëri waaye bu mu tax itam nga découragé na nga cibler rek minorité de qualité bi ñi nga xam ne toog nañ pour pour consommation utile pour di consommer lu am njariñ nga leen di wéttali ndax boo nee ginnaaw dañuy promouvoir ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu loisir beeg divertissement beeg folklore bi kon naa bàyyi su boobaa itam dana mujj ba ki nga xam ne da ñëw pour consommer lu utile day mujj rek yem ca loisir ba ak divertissement ba moo tax ne serait-ce que rek ñi nga xam ne dañoo bëgg a jariñu donte matuñu 2 pour cent ci société bi nga fexe ba indil leen luñ mën a consommer ba tey baax na rek ba tey baax na. ndax dañuy wax ne kat booy wax ak fukki nit kenn di la déglu bul bàyyi booy wax ak junniy nit téeméer di la déglu itam bul bàyyi booy wax ak euh, téeméeri nit fukk di la déglu bul bàyyi lu baax moom yombutaam minorité waaw moo tax ñaare sax boo yoree chaîne boo xam ne chaîne YouTube la ngay jàllale lu am lu am njariñ ci xam-xam bu mën a doon dama wax ne bul gën a euh, focaliser wu ci ay abonné yu bëri ay monétisation déedéet waaye na ko def rek ngir dundal sax xam-xam. man léeg-léeg am na thème yu may waxtaane ki sama chaîne dama naan bu ma kenn dégluwul sax euh, ma jàngal sama bopp boog mu doon ab nafar boo xam ne damay jukkee ci boroom xam-xam yi ndax man mii kat duma boroom xam-xam la doonoon xam-xam boroom xam yu njëkk yi bind nañ ko fi ba bàyyi kon ñun dañuy jukki ci euh, njàngale boroom xam-xam yi di nafar rek moo tax kon dama naan li ñuy jéem a nab na bi di ko jéem a nafar ki suñu chaîne YouTube yi donte kenn dégluwuñu sax yow nga enregistré ko boo amaatee jot nga dégluwaat sax mu leer la ne yaa ngi nafar rek loolu du percement lu ama am njariñ la donc kon yonent bi sallallahu alayhi ne dañuy promouvoir lu jëm ci wàllu loisir lu jëm ci wàllu musique waaw nee itam da nga gis eh, ay nit yoo xam ne dañuy ñëw ci benn montagne benn montagne bu nekk ci digg àll bi jiital seeni jur di sàmm am ku ñàkk koo xam ne mën naa am amul lu mu añe wala lu mu reere wala lu mu ndekkee ñëw ne sarax yàlla sarax ngir yàlla jàppale leen ma ca lu mu yóbbu ca kër ga ñu ne ko ah waaye ñun tane wuñ la balay sarax danga bëgg lu yomb waaye nii rek la def am doole dara dalu leen ñu war a liggéeyi liggéeyu ñëw fii fekk ku liggéey ay atiyaat ñu naan ko ay sarax ngir yàlla ak nangam nangam waaye dama liggéeyi waay waaye nee na ñooñu dee leen muñal temps bu gàtt jant day so rek ñu dem tëdd nelaw ba yeewu rek yàlla daal di sempi montagne ba buddi montagne ba sempi ko daal di leen di soppali ay golo ak i mbaam xuux ñu nekk ci melokaan boobu ba yowmal qiyaam kon lii balaa àddunaa tukki euh, dana dem ba mooy yàlla yu bari ba yàlla riposte ba yàlla teg leen punition boo xam ne du ko xaare àllaaxira waaye fii ci àdduna la koy indee moo tax kon li ñuy ni nii di yombal ak ak mooy yàlla rek di promouvoir ay drogue wala alcool wala di promouvoir wàllu euh, LGB wala ay acte contre nature affaire ngóor jigéen ay homosexualité ay lesbianisme di ko promouvoir rek yàlla ne ciel di tasaare sangara si rek yàlla ne ciel di ñu piéger ci ay lekk yoo xam ne day am sàngara ay naan yoo xam ne day am luy mandal ak di promouvoir ay musique rek nee na day ah yàllaa ngi ne ciel de waaye seetaan mi du wéy de waaw ak ñi am alal ne ciel duñ dimbale ñi ñàkk fu ñu toll ñi am alal di dimbalante seen biir ñi ñàkk nag ñu jàpp ne ak yaafuus ak yambaree leen ko teg yàlla ne cell cell gi du wéy de lu muy yàgg-yàgg bu dakkul rek yàlla dina mën a masa riposte te sanction ba muy tegee mooy montagne ba nga xam ne ca lañ doon euh, sàmmi seeni jur moom lay sempi soppi ñenn ñi ay golo ak i mbaam xuux mbokk yi xadis boobu Buxaari moo ko solo wa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa taqumu saacatu xatta tatasaafadu fi tariqi tasaafud alxamir rawahu lbizaar ibnu xibbaan wa saxaxahu l donc yonent bi salaam nee na balaa àddunaa tukki day dem ba àgg ci nit ñi ñu ñàkk nite ñu nitoodiku ñu kàccoore dëgër bopp ba nga xam ne dañuy sëy ci ci mbedd mi comme ni mbaam yi di sëyee ci mbedd mi waaw nii nga xam ne dangay gis ne mbaam bu góor bi bu soxlaa mbaam bu jigéen mi ci mbedd mi lay sëyeeg moom ñépp di ci teg bët nee na ay jamono ngi ñëw du yem ci mbaam yi de waaye nit ñi dinañ fekk ci mbaam yi ci seen jëfin muy lan nga gis nit ku góor soxla ku jigéen di sëyeek moom ci digg mbedd mi yonent bi sallallahu salaam wasallam nee na loolu dina dina masa amee bu baax a baax a baax a baax a baax mbokk yi euh, bokk na ci li nga xam ne moo koy wane abu abu li mu soloo jële ko ci abu hurayra mu jële ko ci yonente bi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam uh, mu ne walladi nafsi bi yadihi laa tafna hadihi al ummatu xatta yaquuma arrajulu ila almar'ati fa fi ttariq fa yakunu xiyaaruhum yawma man yaqulu law ra'aytaha wala law waaraytaha waraa hada alxaa'it law waaraytaha waraa hada alxaa'it waaw kon yonent bi salaam nee na maa ngi waat ci yàlla mi nga xam ne sama bakkan ci loxoom la tegu neena na balaa àdduna tukki dey di ngeen dema dem ba àgg ci niveau bu suufe ci nitoo di muy ñàkk ba nga xam ne góor day soxla jigéen di ko dàq di ko dàq di dàq jigéen ga ba ca mbedd mi mu tëral ko ci digg mbedd mi du sëy moom waaye su boobaa itam daanaka euh, góor gay sañ def loolu jigéen moog ñamuy jamonoon teel lañ koy tanee du bëri ba nga xam ne bu ca nit yamee du wax ne maanaam du garaawal sëy gi en tant que tel de waaye la fait muy sëyee ci mbedd mi rek lay garaawal naan waaw kii moo ñàkk kersa xoolal ndaw sii muy tëddee ci diggu mbedd mi waaw moom mënutoon a dugg ci néeg bii mënutoon a dugg ci kër gee nga xam ne maanaam bu duggoon bu duggoon ce néeg ba di sëyeeg moom di sëyeeg ki mu takkul wala kër ga di sëyeeg ki mu takkul du garaaw nga xam ne moom euh, maanaam sëyeeg nit ki di sëyeeg ku mu takkul en tant que tel du loola lay garaawal waaye manière bi manière bi maanaam du rapport illégal bi moom la garaawal waaye manière bi mu defee rapport illégal bi moom la garaawal muy danaan waaw kii daal moo moo nitoo di rek kii daal moo mbaame rek xoolal li muy def ci mbedd mi waaw mënutoon a dugg ci néeg bi waaw loolu itam lu doy doy waar la waaw ndax dañ dul tanente dañ dul tanente maanaam moom mi nga xam ne moo cay yem da dul sañawaat ne musta musta sëy ku mu takkul wa an ibni abbas anna rasulallahi sallallahu alayhi wa qaal la tarkabunna sunana man man kaana qablakum shibran bi shibrin wa diraacan bi diraacin wa baacan bi baacin xataa law anna axadakum daxala juxra dabbin daxaltum wa xataa law anna axadahum daajaca ummahu bitariq la facaltum waaw la tarkabunna sunana man kaana qablakum shibran bi shibrin wa diraacan bi diraacin wa baacan bi baacin xataa law anna axadahum daxala juxra dabbin daxaltum wa xatta law anna axadahum daajaca ummahu bitariq la faaltum saxahahu al albani fi silsilati saxiha jëlee ci ibnu abbas radiallahu anhuma ne yonent bi nee na ah li ngeen doon ñaawlu ca xeet yi fi jiitu muy xeetu yonent yàlla luut yaag xeetu yonent yàlla nuux yaag ay ñoom firawna ak naan ñooñ ñooy yées yéen ñi itam jamono dina dema dem ba nga xam ne yéen xeet yu mujj yi di tuddoo xeetu lislaam dangeen roy xeet yi fi jiitu woon ci ak jubadi topp leen ba nga xam ne yéen ak ñoom kiif kiif lu ñu def rek lu ñu sañoon a def rek ngeen def ko ba nga xam ne bu ñu duggoon sax ci paxu mbëtt ngeen fekk si leen ca bu ca kenn amoonuk caay-caay bay sëy ak yaayam sax ngeen ne dagan na kon tey ji xoolal ni ñu toppandoo tubaab bi nga xam ne lépp lu tubaab bi ne dagan na rek ñun dañ naan dagan na waaw nga xam ne tey ni ñu yare suñu doom yi dugal ko ci suñu système euh, éducatif bi yar leen ci benn permissivité bu nga xam ne lu ne dañ koy sañ a def lu ne dañ koy sañ a def waaw nga xam ne liñ leen di jàngal ci ay vivre ensemble ak yu mel noonu yooyu li leen di jàngal ñuy xam ne ah nit kay nit ki de am na am na sañ-sañu orientation sexuelle bu mu tànn rek mu jël ko bu ko neexee doon homosexuel bu ko neexee doon euh, euh, lesbienne bu ko neexee doon lu ko doon lu ko neex waaw question de choix la rek kon kuy doon góor jigéen ku ko dul doon ginnaaw ñun tubaab bi daganal na ko rek légaliser na ko ci réewam yu bëri dañuy jàpp ne moo di civilisation moo di nité ñun loolu lañuy jàpp waaw bu ñu demee ca tubaab ba sax bu lekkee càmmooñ ñu jàpp ne bu ñu lekkewul càmmooñ civilisé wuñ waaw bu ñu demee ca tubaab ba bu duggee ca toilette ba pare war utiliser ndox dem utiliser seen mouchoir yu bon yooyu ñoom ñu ñu itam ñu utiliser ko jàpp ne loolu moo di moo di xayte kon yooyu yëpp dana ñëw ci jamono muy la jël tubaab bi rek naw leen ndax xëy na technologie bi ñu wan ak yu mel noonu ñu jàpp ne ñoom ñoo nite ñoo civilisé lu ñu def mooy dëgg yonent bi salaam nee na bu amee rek nañ jàpp ne àddunaa ngi bëgg a tukki kon mbokk yi indi nañ ay màndarga yu baree bari xam-xam buy ñibbi réer guy sax ah sàngara naan sàngara tasaaroo musique bi di jaabaa jonge waaw nay gi ne xas ci jamono waaw ñu dema dem ba nga xam ne euh, ku nekk façon sëy bula neex góor jigéen yi nekk fii jigéen góor yi nekk fii borom ñaari awra yi euh, wala ñoo xam ne sax dañuy def benn ay opération ku nekkoon góor def lu mel ne chirurgie esthétique wala chirurgie plastique soppi boppam fexe ba am ay hormones yumu mu changé changé ay hormones ba yore formu jigéen màndargay jigéen yore ay ween ak yépp te ci cosaan góor la woon yooyu yépp tasaaroo na di bu ñu demee ba nga xam ne itam àgg nañu ci jamono joo xam ne euh, doomu aadama yi jubadi nañ jubadi goo xam ne mboolem luy mooy yàlla découvrir nañ ko boo demee ci tubaab yi découvrir nañ jigéen mooy ak yàlla jigéen ci façon bu nekk ba jigéen safatu leen dara ak lu mu rafet rafet mooy ak yàlla góor ba góor safatu leen dara ba nga xam ne boo demee ci seen société yi am na ci ñoo xam ne léegi ay poupée la ñuy jënd di seeg moom poupée boo xam ne góor ga day jënd poupée bu yor awray jigéen yor mandargay jigéen di wax ak moom ak yépp muy séy moom ñuy tontonte di waxante yu bon waaw wala euh, na ma yàlla baal jigéen nga wut tamit poupée boo xam ne day yore forme góor yor awray góor muy séy moom ñuy waxante lu ne nga xam ne fi ñu egg mooy danañ dem ba jëmmi jamono am sax nekk góorug nit dem takk jabar joo xam ne nit la ni yow su boobaa dutul yombati danañ danañ dem ba di ko jéem a xaw ma nag dina sotteem déet ci monde bi wala boo ngir nga amati jigéen sax lu cher lay doon yooyu yëpp nag yonent bi salaam nee na ah dee leen def rek yàlla ne ceel la yàlla seetaanul de li sëriñ Mansour si borom daara ji waxoon bu leen wax yàlla ku lewet la xaliim googu xaliim bu leen wax ku lewet la de mooy ku dënneerlu la ñu ne ko borom daara ji luy dënneerlu mu ne dënneerlu mooy sa doom tooñ na la. nga yóotu ngir bëgg koo jàpp mu jéem laa jaay ay xel yu rëy daw rëcc la nee na bul dàqi ndax xam naa ne amul pexe lu guddi guddi dina français ci kër gi bu français rek nga bàyyi ko ba mu tëddi nelaw nga yee ko ndànk ne ko dangaa fàtte ba nga defoon nàngam kon yàlla kenn mënu ko rëcc te am na yoo xam ne nag ndax yow mënoo génn àddunaam mënoo génn àddunaam waxuma la alaaxira de mais mënoo génn àddunaam moo tax nag am na yoo xam ne bu naree continuer ci société yàlla day riposter day tege sanction tege punition punition bi nag mooy lan mën naa soppali ñi ay golo wala ay mbaam xuux kon mbokk yi ñi ngi taaxeerlu euh, ñi ngi tegandi suñu baaraam fii di leen ñaax ngeen abonné ci chaîne YouTube bii di yaatal xeltu yin di bàyyi xel waxtaan yi di commenté ak demee ndax fi la njëriñ yee gën yaatoo jaa ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu